métti waaye nag tax na mu gën a am détermination euh, gën a am euh, courage que ni rek euh, dina daaneel association bi mu mel ni Lamine di collègue am moom tamit d'accord na ak moom te it nag mi ngi koy jàppale bu baax a baax te mu ngi koy gën a pousse ngir mu continuer ndax en tant que journaliste li ko war mooy rek bu toppee benn dossier mu daal di koy leeralal askan wi ba askan wi am ci lu ko leer waaye Madi bi nga xam ni moom bëggu ci loolu dara ndax association bi su daanoo moom mu daanu ndax ca la bokk moom da koy décourager loo saa ngir nag mu avant Ndone loolu nag indi fa xuloo euh, ci diggante euh, ñoom Lamine ak Madi ba tax Leya daal di leen di dàq ndax jàpp na ni rek ci problème yi mu nekk talul ay coow ñu jàll ci Fama moom nag jamono jii dafa ragal ndax jàpp na ni papa dëgg bi mu wax Alioune dina ko wax euh, ñëpp ba tax muy woo Kumba ngir nag am ci lu ko leer waaye gis na ni Kumba yëgagul dara loolu nekk soulagement ci moom waaye mu mel ni rek moom faama war na xam ni rek du yomb ci moom benn yoon te it ay problème day soog a démarrer ndax dëgg bi moom kum commencé naa feeñ day law te ñëpp nag dinañ si jot ñu jàll ci Aïda moom nag mi ngi enquête euh, Papa Dame ngir xam euh, fan la rek euh, lamin mujjee waaye Papa Dame moom wax na ko carrément dëgg bi xamal na ko ni rek faama moom moo rey Papa loolu nag métti na ko ba tax na mu dem daal di attaqué Fama yàq ko lu mel ni xeme yi nag décidé na rek poursuivre ko en justice parce que yàgg na yaakaar ni rek faama génn loxoom génnul ci disparition Lamine ba tax na nag kon tey pare na taxaw temm rek ne da daal di venger wu te dina ko dugal ci ci Madi moom nag gis nañu ni euh, dafa rek euh, waxtaan ak Lamine ngir Lamine daal di euh, convaincre Leya ngir mu génn ci li mu nekk waaye nag moom lamin xamal na ko ni ko moom du convaincre benn yoon Leya muy bàyyi dossier boobu au contraire da ko siy jàppale tax na nag Madi ne moom pare na pour rey Lamine une fois mu melewu ci dossier boobu mu mel ni kon moom Madi moom it mooy yàq deru journaliste yi ndax moom liggéeyam la waroon a privilégié waaye li ñuy wane yoo xam dalay rek daal a euh, defati ñu jàll euh, di intéressé wu ci li muy ñëw ci dossier yi dafa bëri euh, te jàpp ni kon mooy cerveau wu bi ba tax na mu ciy waxtaan ak Lamine ngir nag mu daal di koy jàppale te Lamine d'accord na ngir jàppale ko mu mel ni kon moom Léa su bàyyiwul amaana dina am ay résultats ci li nga xam ni moom la bëgg waaye nag gis nañu ni itam dafa kontaan bu baax a baax bi nga xamee ni Lamine xamal na ko ni rek jigéen bi nga xam ni daf koo yàgg euh, bëgg yàgg koo estimé euh, accordel na ko rek interview mu mel ni kon jigéen boobu jigéen bu baax la comme ni ñu koy waxee euh, ndax ci social bi ñu nekk waaye man dama njortu jàpp ni jigéen boobu day mbubboo loolu rek ngir ñu bañ ko xam waaye jàpp naa ni Sadia Bakhoum la wala ku bokk ci association bi la waaye ak lu mu ci mënti am rek jàpp naa ni dina gën a leer ci buñ leen toppee ci yeneen épisodes yi ñu jeexal ak séquence bu mujj bi ñu gis ni Ndeye Saly woowaat na yaayam loolu nag encore fois gën ci waxtaan ak Diana waaye Diana jàppale na ko ba xam ne Ndeye Saly euh, numéro bi ko woo Saint-Louis la nekk Diana itam moom it ba euh, Badara la am pour mu jàppale ko ba tax mu woo dara ngir mu ñëw jàppale leen euh, donte nag Badara dafa bañoon waaye Diana menacé ko ba Badara daal di nangu waaye mel na ni ba Badara nangu bi mu nangu mel na ni du baax ci ki nga xam ni moo di Diana ndax ku xool Badara xam ni am na lu nekk derrière sa tête te loolu nag mën naa nuire à Diana kon mbokk yéen di foofu la ñu yem épisode waaye laata boobu woy leen di abonné ci seen série TV te bu leen fàttee bës ci de notification bi pour ngeen di jot suñu vidéo yi à temps réel ngeen jëf